fuuta tampi bi ab teen ban góor yàlla moo bëgg teen ban góor yàlla moo bëgg teen fu caba jaar sa doom ak yeneeni doom ban góor yàlla bu nekk senegal gis xale yi moo nekk fii naan day dem dugg ji si fuuta tàmpi sa gémmiñ bi nu mu mel rek wane na sa bajo bi nu mel sa gémmiñ bi yow nga naan da ngay rëy gat nga naan wooy damay taal live ay Kaliphone doo gor ah Kaliphone nii ah Kaliphone naa xoolal ki nga doon xoolal sa gémmiñ bi fu ñu la fekk da ngay jooy sa àdduna di nga continuer di jooy fii ba fu ñuy jëm dangay ngay continuer di jooy doo ma sa leer boo leeree sax dinañ xam ne nekkoo parce que doo nit ku baax mën nga toog nga naan Kaliphone dootoo ko defati yow say junni moroom sa waa kër yëpp seen job bu ndey ñu def si ma dara yow xam nga loolu fuuta tampi sa cent franc dama ko mës a lekk yow sa cent franc yow nga live nit woo la nga naan da ngay saaga Macky ma live bul def loolu bàyyil mu sedd nga naan danga may taala live danga ma dàq live man yow góor nga yow yow bi nga toogee fii di ma sant di ma gërëm ñaata yoon vidéo yi ñu ngi fi audio yi ñu ngi fi fu ñu waxee nga ne Kaliphone sama góor la c'est parce que li ma la doon defara la tax da nga mas a toog di wax yeneen seneen sa gale say góor lañ parce que sa ndékki sa añ sa si man nga ko doon défendre ma lay taxaw nga naan ay eh, ba nga amee problème naqar ak bànneex dam laa taxaw ku la woo nga taxaw ma man du yaa bëggoon buzz ubbeeku di ñëw gendarmerie police et après xam nga lan mooy yaa ma taxaw yaa ma andi si duniya yaa ma toppatoo dépp ma nekkee ndaw yaa ma jëndali yére yaa tax ma voyage yi loolu mooy nga taxaw nit loolu mooy nga taxaw nit nga taxaw tey di ubbeeku di duul demal liggéey lañ la wax c'est fini pour toi c'est fini nguuru APR nga naan ay Jomaay dina jiite Sonko dina jiite euh, euh, Bougazelli dina jiite keneen kan moo koy yëg APR ba mu daj yow rek yaa si torox amul benn membre APR booy gis nga yërëm ko ku yow bu nguur gi toogoon cent ans ci loxo Ousmane Sonko amul benn APR quinze mille douze mille gaa ngi koy jaay neuf mille ngi koy jaay neuf mille mënatoo rattrapé wu c'est fini tu es jeex na mënatoo rattrapé wu bul sonal sa bopp li nga amoon ci benn ministre de la république mu yëkkati douze millions may la li nga amoon ci yeneen directeur ñu yëkkati ay million may la ana xaalis googu casino bi katt na ndeyam casino bi doxaan na ndeyam lekk na lépp Pape Malick Ndour bi ngay toog barki démb naan way Pape Malick Ndour chargé de mission yi di bokkoon nga si yaa ngi doon fay ko fanweeri junni yaa ngi doon am cent cinquante mille par weer yow purux nga doo gërëm ñamu daaw purux nga fii ba femme yooyu jote woo xaw ma sali sow xaw ma femme yooyu bi ngay dem bi wax appel pour nañ la jox dara pour nga dem attaquer benn femme bi casino da ngay fàtte ba nga defee vidéo yónnee kooku di ko naan waaw waaw sa ñaareel bi patati patata kooku ne la nga katt ndeem supprimer lii moom aawam la njëkk am balaa am ñaareel bi nga encaissé nga yàq loolu mel ni xamee keneen ku mu jotaloon ki da nga fàtte ma ñëw si ma ñëw si yow danga nekk référence ci jigéenu Sénégal danga nekk référence si jigéenu Sénégal Fouta Tampi Fouta yow jigéenu Sénégal boo yu gën a tuuti ñu ngi jël jamono jii ñii di jaay ay meewak ñii di jaay ay ceeb ñii di jaay restaurant bañ ku leen yëpp yow fu ñu la fekk yaa ngi woyaan sàmba mbayaan juufee fuñ la fekk yaa ngi woyaan ba nguuru président Macky Sall bi wàccee lan nga def du da nga live di ñaan waa Pastef baal leen ma ay bu ngeen ma baalul bu ñaaw baal leen ma wax leen ma fan laay toogee ñàkk jom waa Pastef ñoo moom Sénégal gi ba ngay naan baal nañ la nga ëlbatiwaat barki démb dem fële ca dig naan Ousmane Sonko gatsa gatsa patati patata ku la si woo yaa yóbbu sa bopp bëgg a bës nga ëlbati ko wax tey naan da ngay xasaat waa APR pour luy neex waa PASTEF waa PASTEF yi xam nañ ne yow fu la gis teegal la parce que waa yi xam nañ ne da leen di mbubboo boo bëggee dara si ñoom rek yenn dofu PASTEF yi may la benn cinq mille dix mille mais lu la waa APR may ci ay million du waa PASTEF ñoo lay may genn wàlla wàllaat bi lu taxoon nga ñëwoon ne Fuuta Tampi Fuuta Tampi ba ñoom Ousmane Sonko di toog ak yow même turbine ak opposition bi nga jékki-jékki wan leen ginnaaw nga ne Fuuta Weli Fuuta Weli lu waral loolu dafa am loo jot nga tëj sa gat li ana xaalis boobu cent franc ama toog lépp naar bi doxaan na ndeyam casino lépp yaa ngi naan Kaliphone dafa jékki-jékki changé bu ma ko bindul WhatsApp sax mu bind maa yey parce que dañoo nekk casino ay seede ñu ngi foofu nga joué perte yoroo loo lekk paas booy ñibbee sax amoo ko ma yëkkati cent mille jox la ne joué nga joué nga gagné ba deux cent mille ma ne la sama cent mille bu ma dugal bi indi deux cent mille yi cinquante mille bi dugalaat ko trente mille teel vingt mille ma téye ma changé machine cinquante mille yi ma la wax dugalaat ko nga zee ba am si huit cent mille huit cent mille nga gañe boobu maa si beneen machine bi ngay ñibbi tàgguwoo ma bi ngay ñibbi tàgguwoo ma la lendemain ma ñëw gisuma la ma woola la ne la Fuuta foo nekk nga ne ma maa ngi sama kër aw ma sax paas pour ñëw casino ma ne la ñëwal boo ñëwee ma jox la loo joué nga ma yaa ngi ñëw ma toog di xaar di xaar di xaar ñëwoo say copines yi nga toogaloon ñëw ñëw ne ma ah Fouta ñëwul tey ma ne lan ah ñëwagul nee na mu ngi ñëw ñu ne noo du ñëw li mu gàñe démb la ma ne lu mu gàñe démb ñooñu ne waaw démb moo gàñe huit cent mille ma ne ah bon fuuta démb kay moo tax bi muy ñibbi tàgguwuma sax fuuta sànq maa ngi ko woo ne foo nekk mu ne ma sama kër ma ne xanaa doo ñëw casino tey mu ne ma amul sax lu mu passé ma ne ko ñëwal ma def arrivé pay boo ñëwee ma jox la nga joué gën ko gore ne ko fuuta boobu teggi na huit cent mille ñooñu ne dañ la ko bañoon a wax kat ngeen jote parce que sa xarit la ma ne ko munul nekk ñooñu ne am na ku mu yoraloon boor foofu kooku da ko poñe ne fay ma sama xaalis sinon sax ñu wax kali eh Kaliphone gañe na si la fayee ko xaalisam muy ñaari jigéen wax ma loolu ma toogaa tuuti ñetti ñeneen ñoo waxaat ma waaye yéen Fouta baadoo la ne de Fouta gañee rek démb huit cent mille tey ñëwul ma ne leen mais c'est pas vrai Fouta daa gañe huit cent mille démb <laughs> dootu ndeem ñu ne ma waaw ma ne Fouta warkat <laughs> dootu ndeem kii mooy jaam kii mooy jaam ñu ne ma Fouta de moo daanal démb major bi ma xool major bi major bi cinq cent mille lay déparé mu ngi woon ba ay huit cent mille ma xool major bi ne cinq cent mille ma ne quoi ah, major bi ngay mu ngi cinq ñu ne moo ko téegal démb si guddi huit cent mille yi ma ne ah ma woowaat fuuta fuuta jëlul téléphone ba muy juróomi nit ma xam ne juróom yëpp mënuñoo fen le lendemain woo ma ne ma kali démb daal damaa toog rek nelaw moo tax mujj maa ñëw ma ne ko déet yaa ngi andi tànk bukki de dangaa ñëw démb yoroo loo lekk maykati cent mille jox la nga joué cent mille bi andi deux cent mille ma jëlaat sama cent mille bi ma joxoon nga joué jox la fukki junni ne ko joué ko jëlal trente mille dóor sa poos ma jël vingt mille dóor sam poos yow ndekke ëlbati nga ba téegal nday huit cent mille nga dem mu ne laay wuuy Kaliphone man di ma jox ma gañe huit cent mille ma ne ko ah juróomi nit yu bokk ñoo ma ko wax ndoo waa casino ñu ngi may seetaan boobu laa teggee sama tànk xam ne doomu xaram ka boobu laa teggee sama tànk parce que cinq personne te ñi ma ko wax du ay xale ay jigéen lañu comme yow yu nekk kasino ñu may seetaan dinañu ku bés boobu dinañ toog di ree ba sonn dinañu ree ba sonn yaay baadoole yaay jaam gars yi on tapote s'il vous plaît on tapote lu la ruiné yëpp casino bi la man na bëtuuma ba ma joué casino dama ne drogue la musiba la te yaa tax ma xam casino parce que picc bu laq si taat day bëgg morom comme sa taat laq nga nga ne xaaral ma laq taatu Californie comme moom yàlla ne ko mu ngi doon am koppor as tuut ma perte sama alal gu bari si casino bi mais yàlla dogal na ni heureusement xaalis laa fa perte perte ma fa sama bakkan perte ma fa sama xel perte ma fa bakkan perte ma fa xel bismillah heureusement perte ma fa sama bakkan perte ma fa sama xel fan yële passé bi nga toogee def vidéo di jooy naan amoo loo fayee sa luwaas di jooy kenn si ay jigéen ku baax bëgguma tudd turam nga audio pour na la dimbali use bi dala nar génne kooku wooma ne ma kali fuuta de yàgg naa ko dimbali ma ne wax de dëgg de man de wax na ma sax mës nga ko may trois millions te kooku jigéen la de liggéeyul si état jigéen ku am ay business su boppam di dem Amérique di ñëw xay na mu ngi may seetaan jigéen bu baax fuuta yow toog nga ne jigéen boobu may na la trois millions jigéen bi ne ma daf la bëgg wutal foo dëkk jox la saxloo liggéey mais dañ ko ni da ngay jouer casino ma ne ko ah, dëgg la de moom parce que man du ma fen ma ne ko nag may ko li ñu koy may rek mais casino moom këram la moom kooku ne kon léegi du la jox xaalis boo wuti jee kër yow demal nga wuti kër fopp foo mënti am mu fayal la ko par weer nga woo ma di mer naan kooku bu lay dimbal nii casino ba am na ñu ma fa bàyyi def nañ fa 15 ans ñii def nañ fa vingt ans te Fouta Tampi yow ba léegi yaa ngi casino mënoo bàyyi casino parce que virus bi dugg na la man heureusement benn huit mois laa fa def ñi fa nekk ñu ngi may gis damay ñëw benn ngoon perte fa trois million cinq cent ñëw benn guddi perte fa deux million ba jour bi ma naree ñëw jóge Sénégal ñëw Paris vendredi boobu rek j'ai perdu deux million ñu ngi may seetaan waa Casino xam nañ ne fenum yow nag douze million bu la ministre bu joxoon ñef ndem nga foofu yeneen ministre de la république yi dinañu seetaan live yi dinañu exactement li moo tax kay fuuta chaque jour mu jooy luwaas parce que ñun dimbali nañ ko weer bii dee deux millions kii trois millions mais ana xaalis boobu gisuñu Fuuta ubbi boutique gisuñu Fuuta <laughs> voyage yi ñëw Fuuta mu ngi biir dakaar mais on voit plus l'argent Fuuta casino bi moo lekk sa xaalis casino teeru bi la yéen ñi di ban casino casino bi nekk teeru bi hôtel bi foofu ca Corniche et casino teeru bi moo la rey moo tax nga jékki-jékki def sa vidéo bi vidéo bi yaa ko def vidéo bi yaa ko def bi bii yaa ko def di jooy danga nga sonn sonn nga mhm, casino bi la mhm. mhm. da nga sonn casino bi la te mënatoo ko bàyyi virus bi dugg na la naar bi téegal na la rokk eh, ñaam joodo bi téegal nañ la si ñaam joodo bi c'est fini. du xam loolu ay duul la Kaliphone bett nga ma nag nag bettati nga ma dafa di sama nit ndax damaa foogoon ne bi ngay wax sànq di bëkk bëkk di wax ne xam nga turu ministre yi xam nga ñi ma jox Kaliphone nguuru Macky Sall gii. nguuru Macky sàll gii kan moo si dañuy war a yàlla tax nguuru Macky Sall bii kan moo ci jël douze millions douze douze millions jox ko Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi pour mu noppi nguuru Macky sàll bii xel mu sell yaa ngi ci APR non non dama la dina arrêté mais dama ne yaa ngi ci APR dama ne nguuru Macky Sall nguuru Macky Sall ban ministre mooy wàññi benn ñaar ñett ñett ba fukk ak ñaari million douze million ah nguuru Macky Sall gi ko neex na kuy jël fukki million Farba Ngom du ministre fukki million ak ñaar jox la boo demee bay ŋàppeeku ba ñëwaat ne dangay wax dalay wax lu téyewul Kaliphone maa ngi sant yàlla rek alhamdulilah rabbil war na ma ndax nee nga sama lii daa yaatu ba benn góor bu jong buggul kon góor ñamul kon ñamul benn góor ñamul gisoo fu góor ñame alhamdulilah rabbil alamin maa ngi koy sant yàlla Kaliphone Sall bii kon góor ñamul yow góor ñamul góor ndax dafa yaatu kon maa ngi koy sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin Khalifa Sall danga ne yow bi nga waxee sànq xanaa li nga wax danga koo fàtte Khalifa Sall man waa kër Ousmane ñu jënd sama njaay ak ñu bañ a jënd sama njaay yëpp amaluma importance man tooguma fi pour waa kër Ousmane Sonko jënd sama njaay la waa kër Ousmane Sonko rek nekkuñu Sénégal ma ne man maa maa aj yi man maa ne man maa politique tul man maa ne man opposé tuma man maa man Ndiaye man maane man Ndiaye libéré wu ma résisté wu ma Kaliphone ne dangay yor sama audio yu garaaw te boo ñëwaatee du baax Kaliphone nga ne casino lan loo wax ci kasinoo Kaliphone man lu mu bon bon bon bon nee nga bii góor ñi dañoo ne bëgguñu Kaliphone nee naa xam nga lu tax mënumaa teppeeku ndax gis nga doomu aadama dafa am koy may cër muy say sœur yow ak sa frère Jules sànq ba tey mu ngi woote muy ñu baax bëgguma lool am fuñ ma teg Kaliphone yow dangay sën mbalit nga kenn bëggul sa famille sax bëgguñu Kaliphone sa famille dem na woon nañ ba araamal la à vie man topp ma ci xale yu jigéenu mineur tey ma tëdd Kaliphone Kaliphone bugguma wax barke yonente yàlla Muhammad Kaliphone bugguma wax Kaliphone bugguma wax du yow du yow du yow yaa tax du yow yow taxoo mais Kaliphone sa famille Kaliphone sa famille Kaliphone man bés moo waxee yow dootoo tege sa tànk ci Sénégal Kaliphone nga damay live. damay live. mais léegi ba pare soxanam damangal uddanam damangal caabanam damangal Kaliphone te yow damay live ba pare Kaliphone. <laughs> Kaliphone Sall vraiment vraiment vraiment vraiment j'ai pitié de toi xam nga ndax lan Kaliphone Jules Jules Sall mi ma coupé léegi. Rugi Sall Kalifon Sall sa jabar gor bu nekk gor nga gor bu nekk gor nga ndax même dul yow dul yow sax mu doon ñoom Kalifon Sall damaa bëgg nga wax ma kan ba kan moo ne la sama doom dañ ko tëj laajalee ma Kalifon Sall kan moo ne ko ca ba koy ñaar dañ ko tëj laajalee ma ko Kaliphone Sall te na fexe nag ba bu noonu man ndax defe naa li may wax na ci des preuves yu leer Kaliphone Sall bëgg nga wax ma ban kasino ah ndax boobu waa APR yi waa waa Pastef yi bii coow lu bare ñuy xeex ñu naan casino waa dama leen di laaj rek nag yéen ñëpp moom ma fi kenn xamuma leen sax amaana yéen ma xam ku xam kasino wala ku ma mës a seen casino man Ndiaye. bindal walla nga génn nga wax sama bànni poto ku xam génnal walla nga bind nga wax Kaliphone nga ne damaa dëkk yow Ibrahima taalibe seen Babacar nga dama ne leen ku xam ku ma gis man casino walla boîte wala restaurant wala nga dox ba génn ba dajeeg man waxal waxal benn beneen bi mooy Kaliphone dañoo xaw a samay cër xam nga lu ñu tax ñu pinge samay cër say mag ñi nga bokkal ndey ak baay téléphone ñuy jël woo ma di wax ak man Kaliphone bul tax ma indiwaatal la problème fat jaane ma teg sama loxo Kaliphone bul tax ma suli néew ya dee woon Kaliphone bul tax ma wax ku jur oh bu leen na ma arrêté bu leen na ma arrêté Kaliphone lenn kese képp dong tey nga am argument benn mooy vidéo ba ma defoon en deux mille vingt et maa ko defoon dëgg la kay maa ko def maa dellu maa ne nañ ma jéggal yow Kaliphone sànq waxoon naa dem jaayi yaboy aw ma liggéey waxoon naa dem jaay yaboy aw ma liggéey Kaliphone yow yaa delluwaat nga ne man li may jaay ma koy jaay douze mille euh, neuf mille lay jar man aw ma sax lu ñuy jaay douze mille far. nga ne neuf mille may ma tuuti rek mon frère may ma tuuti rek nga ne ma aw ma sax li may jaay amul ma koy jaay douze mille jarul sax douze mille neuf mille lay jar Kaliphone ba xam nga ne ku iñaan ak sang ndono sang néewin ñaaw Kaliphone man duma jongoma 3G jongoma 4G laa Kaliphone man yërmande amul ci man téléphone man ku ma xool xam na ne ku man ku ñu yërëm amul ci man téléphone man damay ñaan ne masata lu waay am ngir yàlla may leen ba ma fay sama kër d'accord naa damay ñaan moom ñaan rekk laay def bu ma yoree numéro fu ma fexee ba am numéro kilifa dinaa ko wane ko yoroo foofu dara waaye man Kaliphone menacé wu ma kenn chantage wu ma kenn Kaliphone man jëluma ay jigéen di leen boole ak ay kilifa pare tey leen en otage Kaliphone yow de casino nga fi wax ak sa doom ak vidéo ba ma defaroon Ousmane Sonko waaye Kaliphone ba aggoo Fouta Tampi càggala de Kaliphone nga ne man damay naan nga ne damay naan ay yàlla baax na kon bàyyi ma naan nga ne man damay naan <laughs> est que duma ci boole beneen bi sax bu weex bi ma fóon ko baa ma damay arrêté léegi Californie xam nga lu sa problème c'est que li ma metti rek mooy Californie li ma bëggoon wax duma ko wax xam nga lu tax li ma bëggoon wax duma ko wax mooy Kaliphone ma damaa fukki sama bopp fi ma toll nii Kaliphone ma focus sama bopp focus sama liggéey poligatuma politi politikuma xuloowuma xasanteetuma dafatuma dara xam nga lu may def jaay ñaanuma Kaliphone France géey nga dugg ne na nga fa duggee kayit ya fa aw ka nga àndal la cinq na nga waroon dellu see le dix-huit ak na nga waroon delluwaatee balaa nguur gi di daanu oh kali duma wax xam nga tax duma wax dama jox cër sa famille ndax mënoon nañ laa woo ndax sa famille dalaa bëri nga ndax mënuñ ci yow dara man mii nag sa famille am fum ma teg woo ma wax ak man bu ma la seet yow waaye damay seet sa famille dëgg la kay nekkuma sa xarit tey laa xam ne nekkuma sa xarit waaye maa ngi sant yàlla Californie ñetti atumaam yàlla ma nekk kook yow tey ba nga live da nga ne da nga samay video yi samay samay audio yu garaaw boo ko tegee dëkk bi tëj Carrefour nga teg samay jooy yu démb waaw maa ko jooy di maa ko live di man maa live di maa jooy samay jooy maa ne sénégalais yi pitié je suis pas heureuse viwuma xaw ma luy dund aw ma bànneex naqar rek laa nekkee parce que nag man si je donne man damay joxe ba mu jeex tàkk muy bëgg dama ko jooy ba mu jeex tàkk muy ngëm-ngëm dama ko jooy ba mu jeex tàkk problème bi mooy retour bi man lan laay amal en retour Kaliphone yow mii boo taxawee nga ne APR defal nañ ma lu ne pourtant nag mu ngi ci dem leen YouTube mbaa ngeen dem euh, fi nga xamante ne mooy mooy Facebook am yow laay fal nga ma man ci waa APR nga ne leen futa tampi nu mu sonne ci APR lu mu daj ci APR su leen koo defal dal kuy sonn moo la gën a sonn day jigéen rek di jàmbaar moo tax mu jël ay cuuraayam di ko jaay loolu yaa ma ko waxoon yàggul mu ngi fi yaa ma ko wax de kon boo delluwaatee tey ne APR dañ maa jox ay douze millions ay ay ministres xam nga loolu wax day yenu maanaa téléphone man nag nit dangay am looy jombal sa bopp am looy seet am looy romb kali baa xam nga ne man yoruma ci yow livre dictionnaire laa yor ci yow yoraa ci soleil ak i page yoo xamante ne nii ñu bind ba mu fees dell nee naa ma ko tegaatoon ci taabal bi kali du baax kali nee nga naa dem uti liggéey kali lu man du mu bon maa ngi jaay kali loo nekkee mais du Ndakaaru yi doxantu mais du français loo ci nekkee doxantu ak live Kali fooy fanaan Kali yaa ngi war a fépp de ah, Kali maa ngi jéggalu rugisal maa ngi jéggalu jur maa ngi jéggalu Kali duma wax duma la tontu ah ah mm, mm, mm, Kali bu yeboo sénégalais nañu wax yow lépp li nga wax dëgg la